yëg nga ne Bob Marley day ñëw Sénégal. ah kañ lay ñëw Sénégal. Euh, mai. ah man de dinaa ko seetaane bu soobee. yow il dans le stade samedi. le mai. <laughs> ok y' pas de souci. nice yëg nga ni Bob Marley day ñëw samedi fii. Bob Marley yëgu ma ko di nga ñëw. incha allah nga reggae. man waaw. yow Bob Marley ban woyam nga xam. ah bëri de. bi muy woy jigéen soppal te bul loolu xam nga ko. xam nga ko. Euh, est-ce que yëg nga ni Bob Marley day ñëw ci concert non non yëguma ko woon. mais est-ce que di nga ñëw pour gis Bob Marley. incha allah. nga ni Macky Sall dafa permettre Bob Marley pour mu ñëw jouer ci stade bi 11 mai. Macky kii Macky Sall moo ko permettre euh, Bob la waaw yëguma ko moom. waaw doo bàyyi li nga jàpp ni nga koy bokk da koy bokk nii rek. dama koy dégg rek. yëg nga ni day ñëw Sénégal. waaw. yow pare nga pour dem seetaani Bob Marley. Ah, waaw président bu yàgg. Macky Sall mu ne day indi Bob Marley Sénégal yow noo gisee initiative boobu. na ko indi man moom Macky Sall laa àndal. mais yow est ce que mës Bob Marley en vrai. Bob Marley déedéet ma gis. mais di nga ñëw concert bi. waaw waaw man jàmm nga ñëw nga déglu Bob Marley. ah kay dama koy gis sur scène. non non mosuma koo gis. yow booy da ñuul wala huile bi la yow xam nga Bob Marley. xam naa ne day ñëw Sénégal non mais bu ñëwee fii stade di nga dem. dinaa dem kay. non man boobu moom sincèrement du ma ko suivre. Ah. pratiquement du bu ñëwee senegal di nga kontaan ci loolu. bu baax a baax na gars yi ñëw Sénégal réew mu teranga la. yëg nga ni Bob Marley day ñëw Sénégal le 11 mai. waaw. pare nga pour dem. waaw yëg nga ni Bob day ñëw fii le 11 mai. waaw. Hmm? waaw pare nga pour ñëw seetaan si Bob Marley.